les centres qui ci une mobilisation exceptionnelle nous sommes les di qui ci seen teewaay ma saw coono ndax yàgg ngeen sama gars la campagne d'or depuis ce matin nous avons sillonné les rues de plusieurs quartiers de Dakar commencé dans ko par Ngor dellu Wakam on a fait ensuite l'université jaar ñaari tali waroon continuer HLM gis ni guddi te yéen ñi la ñu toog di xaar depuis longtemps ñu ne nañu ñëw def meeting bi bu ñu paree dooga delluwaat jël itinéraire u HLM bi. ñuy masaw nag ñuy masaw di jaale. waa Sénégal yëpp ndax bi may gaaree fii lañ ma yéegal nii am na benn xew-xew bu tiis bu am benn accident boo xam ne lu mat juróom benni xale bàyyi nañ ci seen bakkan loolu di événement bu tiis ñuy masaw seen mbokk di leen jaale ñaan yàlla mu may leen xolu muñ te jox leen lu gën li fi jóge Nous avons traversé nañu une petite partie de Dakar bu sommes yàlla ya ca des yëpp dinañ ko def étape par étape ba matal quartier yépp parce que xam ngeen ni ci suñu style de campagne meeting yi sax du farata li ëpp solo mooy les proximités li ëpp solo mooy les caravanes parce que nag yàlla may nañu que nous sommes dans le cœur des Sénégalais quand vous avez la chance d'être dans le cœur des Sénégalais, vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour mobiliser les Sénégalais. Vous ne ferez pas partie des acteurs politiques qui ont Partout où on est passé, les gens sont sortis massivement. taxaw ci trottoir réservé nous un accueil exceptionnel nous ngi leen di gërëm di leen sant loolu chacun et à chacune d'entre nous le poids de la responsabilité qui pèse sur nous askan wi que à yaakaar ci ñun de askan nous qui doyal qui système bi un askan qui nous Tibir biir ni woote ak ni wut ñan ñoo mën antidote à ce système qui a pris le peuple en otage depuis 59 ans. Chacun et chacune d'entre nous doit sentir le poids de cette responsabilité. Et cela doit guider et déterminer notre conduite de tous les jours. La victoire est à notre portée. Et vous le savez tous. li ci dit bu gàtt lañ ko liggéey ba tey fu ñu dem ci Sénégal fu ñu dem ci diaspora bi il y a un engouement exceptionnel ñu koy sante yàlla waaye muy seen effort à vous également bu leen teggi seen tànk parce que nous sommes à 20 jours de la victoire et d'une victoire éclatante nous allons continuer et nous tendons la main à tous les Sénégalais à tous les patriotes le combat n'est plus un combat de parti politique c'est le seul parti politique c'est le Sénégal Sénégalais vous n'avez pas de responsabilité président parce que c'est la seule coalition qui promeut la rupture véritable. dama wax jël li ñuy enregistré une première émission Nous nous, on est prêt pour le débat dès le premier tour est-ce que xam ngeen pourquoi parce que suñu programme du programme belle programme suñuy proposition du moroomu belle proposition nous sommes les seuls à oser la rupture et la vraie rupture nous sommes les seuls à toucher du doigt les problèmes fondamentaux de ce pays. Et c'est pourquoi d'autres affaires au parti politique. Taïki, fii bëri na l'équilibre politique Et c'est ça le patriotisme. Le patriotisme transcende les clivages politiques, ethniques, religieux. Il transcende les clivages générationnels il transcende les clivages de genre. Le patriotisme, c'est lorsque la patrie appelle qu'elle ne connaît pas tes bopom, pas tes wasom, pas tes religions, pas tes tariham, mais une patrie du monde, donc dormez sur la patrie. Vous êtes des patriotes. Nous avons un bon programme. Les New York, les New York, avec l'Union sénégalais depuis six mois qu'on est de manière ininterrompue en train de sionner le Sénégal et la diaspora c'est que les Sénégalais ont déjà choisi et les Sénégalais ont choisi votre coalition et votre candidat nous allons si on nous fait confiance et je veux que ces mots-là vous les reteniez

Ce paré, paree na ngeen dem restituer ko partout djukki ay secteur par secteur dem diko sénégalais ñu xam lan wax dañu un programme ambitieux en termes de politique économique Nous ñu sur l'impératif je pèse bien mes mots l'impératif d'industrialiser ce pays parce qu'on n'a jamais développé un pays sans industrie amenu un programme ambitieux ndax suñu réussiré wala suñu lancer ce pari industriel suñu filière ñoko wara alimenter un programme ambitieux pour xamné dafa des mesures courageuses parmi lesquelles la revitalisation des vallées fossiles et l'encadrement du monde paysan mais une réforme foncière et agraire audacieuse pour que béykat yi mun pour mun ko comme levier de financement am un programme ambitieux pour le secteur de la pêche C'est de dama koy brosser parce que Ben bu ça fera l'objet d'un développement spécial si n'est temps d'antenne nga xam ne commencer par protéger notre pêche artisanale qui est agonisante à protéger nos ressources halieutiques

un programme ambitieux dans le secteur du tourisme ak et et un programme social bu ngeen dul gis fenn généraliser le système de prévoyance sociale ba sénégalais Je ne moo xam menuisier mécanicien je suis xam jànq bi ci chauffeur de taxi je suis xam coxeur nous avons une couverture sociale mën a am couverture maladie mën a am retraite comme tout le monde am un programme boobu. am nañu un programme ambitieux en matière éducative particulièrement l'école publique qui est l'école de l'égalité des chances nga xam ne ñun ñii ñëpp wala ñu bëri ci ñun bu ñu taxawee école publique moo ko permettre peut-être ce waajur amuñu woon moyen ci jamono jooju naan dañuy yóbbu école privée cette école publique de qualité qui a fait quatre présidents de la République, qui a fait des médecins et des agrégés, qui a fait des intellectuels de dimension exceptionnelle, recherchés dans tout le monde, et qu'on a saboté ces dernières années, amené un programme ambitieux pour cette école publique. nous un programme ambitieux pour la santé, pour la décentralisation et la territorialisation des politiques avec les pôles régionaux. Mouna tari tari tari tari. waaye lii suñuy spécificité li ñu wutalee gars yi parce que diggee moo gën a yomb ci politique bis bu ne ma wax leen ko ñëw ne su ngeen ma pare dinaa def ay usines yu defar supp kànja ñëpp mën nañ ko diggee moo gën a yomb ci politique waaye am na loo xam ne faru leen ko dégg si politiciens yi de mooy lii ma wax ni ko bëgg naa ko def ak lan laa koy defee ak yan moyen ak yenn levier de financement tey nag dinaa jukki tuuti mënuma ko jeexal tey ci li nga xam ne ñun mooy suñu levier de financement campagne électorale la ñu nekk jamono proposition la jamono teg ci table bi lu concret la du jamono dajale nit ñi ñu tëgg fecc mu bi bëri bu affaire bi waaj jeex waaj yëg ci tribune bi jël micro bi ñaari minutes Je ko amul liggéey wala doxul ci ne bravo désormais le peuple sénégalais va être très exigeant vis-à-vis de ses acteurs politiques réew mi cuune waratul laaj réew yenn responsabilité parce que nag gars dañ ne alquran ci bopp

jarul taxaw di wax ay proposition technique parce que amuñu niveau bi ñun nag xeebuñu askan bi te li ñu def ci ñeenti at ci politique gis ni saa ñu duggee ba ci àll bi ba ci village yu gën a reculé nga gis ab béykat bu toog ne la keroog bi ma la gisee nga taxaw assemblée nationale wax lii laa la jàpp ba tey kon askan wi yeewu nañu askan wi kenn dootu leen nelawloo li lay wax ne tout le mesure de comprendre sax dañu ne état dafa am dafa soxla ay ressources war a def ay dépenses loolu mooy kër rek kenn ku nekk ci yéen waxuma la këram sax waaye kenn ku nekk ci sa bopp da góor góorgóorlu pour am loo fàggu dugal sa poos boo ko fàggoo ba noppi nag ngay dooga ne ah war naa jënd carte de crédit ah war naa fay location ah war naa fay scolarité ñaari yu bëgg yooyu moo yor état le Sénégal dafa mel ni de défense avec les ci xam deuxième jour campagne premier jour campagne le deuxième jour déclaration je passé les wax sénégalais pour eux, lu ñuy déroulé cette campagne bi ne passé lii fas yéene nañ ko def ñu xam ni waxoon nañ leen ni lii mën def c'est extrêmement important premier élément ci ressource état yi mooy li wax fiscalité moo ëpp ci lu état mën a dajale te loolu ci réewu àdduna bi yëpp la ba mu des ko être yenn réewu naar yi nga xam ne ñoom pétrole ak gaz lañuy dundee amuñu système fiscal waaye soo tey soo demoon Allemagne dem France dem États-Unis foo mun ci dem réew yooyu li ko njëkk a yor mooy l'impôt su ñuy wax l'impôt nag ñu ñu dañ naan wuu waaye su ñëwee moom ñëpp lay taxé déedéet l'impôt mooy ñun li ñu bokk ñun ñëpp naka la ñuy def ñëpp bëgg nañu faju ñëpp bëgg nañu lekk ba suur te lekk lu baax ñëpp bëgg nañu am école bu baax pour seen doom jàng ñëpp bëgg am suñu fajoo suñu feebaree dem faju ñëpp bëgg a daw ci ay tali yu baax ak leneen ak leneen ñëpp bëgg a am ndox gis ngeen dem ba léegi ndox amul Ndakaaru ñëpp bëgg a am ñëpp

ak yeneen mesures yoo xam ne ci wàllu l'impôt bi la ñaareel série de mesures yoo xam ne fas yéene nañ ko def mooy lii nga xam ne yàlla wërsële gënuñu ko muy suñuy ressources naturel te ki fi nekk sàggan ba dem joxe ko jaay ko laa war a wax sax parce que soo demee ba ñu ne la li nga am ci ressource naturelles munoo ci am lu weesu 10 pour cent kooku musiba la loolu lañ ne nun de bu ñu yàlla dénkee réew mi jaarale ko ci yéen li ñu am ci alal muy pétrole muy gaz muy zircon muy leneen leneen kenn du ci ëppale Sénégal dinañu renégocier tous les contrats wala ñu nationaliser ko sur les renégociations motuduko waaye mënoo nekk ci réew moo xam ne ci vingt cinq pays les plus pauvres du monde la ne yàlla wërsëgale ñu ay ressources yoo xam ne ñoom rek mënoon na régler suñu problème ñu sàggan ba jël ko jox ko ñeneen ñi ñu toog di xoole levier boobu levier bu ama am solo la te pour ñu réussir ko nag on aura besoin du peuple derrière nous on aura besoin de votre soutien parce que doon liggéey bu yomb ñetteel bi ci levier ba léegi mooy réduction du train de vie de l'État gis ngeen li ma wax nii rek ay milliers de milliards la ñun dañu ne ci juróomi at budget Sénégal mën nañ ko multiplier par cinq ci juróomi at loolu boo ko téye ba pare soo la neexee nga ne nag man dinaa yokk lii ci éducation dinaa yokk lii ci santé dinaa yokk lii dinaa créer des emplois pour les jeunes mais boo ko yorul la ngay def mooy premier levier boo xam ne ñun dañ ko war a combattre réduire ko mooy dëkk ci leb parce que li ñuy def ni mais ñu ne dañuy dem ñuy leb te gis nga réew yi am doole yi yeewu nañ yeewu boo xam ne. boo ñëwee ne am naa pétrole am naa or am naa zircon am naa phosphate am naa géej gu may maye loo bëgg ñu lebal la ñu lebal la parce que soo soo fayul ci xaalis di nga leen fay ci loolu engagement yi nit ñi bis bu ñu daanoo ba ñu audité dette bi di ngeen xam ci ban base la ñu demoon lebi engagement yi ñu jël ci suñu tur ak suñuy turu doom ak suñuy turu sët parce que sur vingt ans sur trente ans sur cinquante ans il faudra payer cette dette là waaye.

li ñuy yàq ci matériel ci état kon ñu Ndakaaru boo doxantu duñ fa gis ay oto aade yu fa sànni léeg-léeg benn pièce bu ndaw moo ci yàqu ñu sànni ko foofu jënd beneen bu bees jox waa ji muy gundaanaan ñaari weer ñetti weer yi la ñuy changé matériel de bureau parce que li tax ñu koy def mooy marché public yi moo leen di permettre ñu dund am ay milliards parce que surfacturation yi ñuy def bind naa ci sama livre bi ne. rien que si nous agirons sur le marché public, la surfacturation, très bon, nous avons 500 milliards, nous de 1400 milliards. Lorsque nous devons agir, démontrer nous, si nous avons les normes de l'ONU, avec les que nous Mais les pays développés, nous avons 11% de surfacturation sur les marchés publics. Quand nous devons dire que nous devons 30%. Si nous devons 11%, daal koy jël ci volume marché public yi passé c'est quasiment 3 plus de trois milliards yoo mën a économiser at bu ne mais loolu ñaata la mën a tabax ci ay classes abri provisoire yëpp mënoon nañ ko génn fii rien que en faisant ces actions là levier boobu levier bu am solo beneen levier bi mooy nii nga xam ne mi ngi génn ci réew mi ñu ciy def ay fraudes yu extraordinaire dama leen ne yéen seede ngeen bi ma bindee ci sama téere ci pétrole bi at ak genn wàll ba léegi gis ngeen ko ko ma ne leen caay caay gi nekk ci ni yore réew mi parce que ku ñëw andi ay mallette bu joxe ñu signal ko li mu bëgg waaye tey te c'est pas encore trop tard parce que délai de forclusion bi weesoogul suñ ñu wóoloo ba dénk ñu réew mi lii ñu moom ci ñu alal jox ko ay nit ñuy wër di ko jaayante entre ñoom dégg ngeen coowal Frank Timis ak Cosmos ak kenn kenn ñu ñëw di ko paasante di ko paasante te suñu législation ne woon ne loolu lépp dañ cee waroon feye ko ay lémpo biñ ko calculé ñun ay milliers de milliards la yoo xam ne tey waroon a dellu si ci gafaga Sénégal ndax bëgg ngeen ñu delloo si milliards yooyu ndax yéen vous êtes prêts à ce qu'on cet argent au pays. Faites-nous confiance et votez pour nous. Je parle au peuple sénégalais. vous ngeen ñu voir de la dina dellu Vous le bu de Vous avez nous entre nous Vous avez léegi lii lañ utiliser Lui, que lañ ko jëmale parce que nous sommes au Sénégal quand tu fais le tour du Sénégal tu as mal au cœur j'ai fait pratiquement toutes les régions les Sénégalais souffrent et ils souffrent dans leur chair et en silence. Et pendant ce temps, on a une oligarchie politique, pour ne pas dire politicienne, qui s'est accaparée de toutes les ressources avec un niveau de corruption qu'on n'a jamais égalé dans ce pays-là. ay président président la président là ci parti bi la bokk il est temps qu'on mette un terme à ça et c'est ça les enjeux de cette élection présidentielle l'enjeu du de l'élection présidentielle c'est la réappropriation de notre souveraineté nationale moomaat suñu bop les combats yi nga xam ne suñuy mag suñuy mam souvent on parle de Cheikh Ante Diop on parle de Mamadou on ne parle pas suffisamment de nos grands résistants Nous muy par les armes Nous ñi nga pacifiquement tous ces gens-là ont été trahis depuis l'indépendance par la manière dont on a gouverné ce pays vous devez être nous devons être les dignes héritiers de ces ancêtres les dignes héritiers de ces devanciers en gagnant ce combat-là et en restaurant la dignité nationale nous n'avons de complexe par rapport à personne amul lu fees suñu bët amul suñu bët on respecte tout le monde mais on sait qui on est nous aussi kenn gënuñoo intelligent kenn dàquñoo jàng kenn gënuñu ay valeur socioculturelles kon li ci des mooy gëm suñu bopp luy jot jot na suñu slogan mooy jot na la ca tegu mooy li ñëpp Bok, ñëpp jot tey li ñëpp bok dafa pété bor ñenn rek ko yor loolu mo ñewon discours bi ñu en vous disant que les 18 jours à venir les 18 jours à venir soyez les envoyés spéciaux soyez même les prophètes du programme qu'on met entre vos mains nous avons un bon programme vous avez un bon candidat la tienne et nous sommes aimés par les Sénégalais la ca moi, mooy dem à la rencontre des Sénégalais ne vous laissez pas divertir par ay waxu kacaw kacaw ne vous laissez pas divertir par ñoo xam ne amuñu xalaat amuñu programme jaaxle nañu dit nañu parce que tous les sondages vous disent que dinañ leen yéen ba ci kaw góor ci la leen dese mooy xëy su bon job. li olof nag naan gémmiñ du wax mais ne vous en préoccupez pas Personne on n'a pas besoin des milliards pour gagner ce combat parce que nous fonctionnons à la conviction nous sommes des patriotes nous croyons à ce pays et Inch'Allah nous allons gagner